saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Ama Baldé ki mbokkam Zil Baldé ma ne téeméeri million rek mbaa Ama Baldé du bëre kenn cent millions ou rien loolee la Zil xamle Ama Baldé buñ ko fayu téeméeri million du sëgg du siggi ñun waa kër Faalaay Baldé ñaar fukki million la ñuy laaj ngir mën a jàkkaarloog roi des rax ca dolli moom Zil ne les négociations sont au point mort waxtaan bañ doon waxtaan ca combat ba waroon a dox ci diggante sëll bu ndaw ak xarañ loo promoteur ba Luc Nicolaï nee wa daa pause bu njëkk léegi gisatuñu lig déggatuñu lig waaye li may wax te di ko dëggal mooy nu nataandoo pas lig xaaratuñu lig Nicolas suñuy bunt nee nañ ko ŋàpp képp kuy promoteur te bëgg taxawal combat Ama Baldé rek doxal wut si ñu on ne ferme la porte à aucun promoteur amul benn promoteur boo xam ne tëjal nañ la suñuy bunt Jules Baldé rax ca dolli ne damaa bëgg amateuru làmb yépp xam ne amul benn avancement ci dossier bi dossier Ama Baldé moo soxla dee sansam te boobee moom Modou dafa daan Eumeu Sène rek ñu jox ko titre ba mu daanaat Eumeu Sène ñu jébbalaat ko beneen titre journal ba xam le deux fois meilleur lutteur ANPS ak roi des arènes daal Eumeu Sène jig na Modou saa yu Modou ñëwee ci Eumeu Sène dana am ndam dana am titre li li mel na ku ne neexul da nga bokkul la nar a neex kay mooy diggante Balla Gaye ak Boy Niang 2 càppaacoo li mi ñépp taxaw ne digganteem ak Balla Gaye 2 dafa ñor xoom amateuru làmb yi koo wax mu ne diggante Balla Gaye 2 Boy Niang 2 loolu dara du ko dàq foofee nag la journal ba def mooy daal di sampub laaj Boy ba mu feeñee bu yàggul dafa ne moom it tëjul ay buntoom képp ku ko làmb booleel te ay mbokkam nangu Aziz Ndiaye nangu rek pare na pour bëreeg yow journal ba ne Boy Niang bu génnee ci bile combat yoonu làmbam dana leer nañ mbër yi waroon a daje waa sunu làmb wàcc nañ ci école ba waaye gisuñu kenn du entraîneur du dirigeant te du journal ba xamle ne loolu nag niruwut lenn lu dul faux départ ka a am départ bu baax kay mooy Bombardier ma décroché ñaari combat benn ba ca Japon benn ba ca Angleterre moom Bombardier dafa bëgg a ci MMA bi daal di toj kaani paccal ca limon le ci Maris Ndiaye la fa séene jàkkaarloog Jérôme waaye ni moom Bombardier signé la ñu dippe le seigneur des KO juróom benn fukki victoire ak juróom-ñaar la am te yépp ci KO la ko daan ma en quart de finale le 1er bii sama digganteeg pakala final d'accord ma ci décision arbitre yi ni mel nag bu ñëw xam ne du ko nangu du ma ko jéggale yi ni mel damaa bëgg arbitre yépp xam ne bëgguma ko bu dee pakala junior moom fësal nañu mu bëgg ak ay bëgg-bëggam ci sunu làmb ci États-Unis la nekk di trën tey waaj retouram pakala kan moo nekk sa xel mu Malick Niang def benn défaite boo xaymaa seeni combat ci atum mu ngi toll ci 4 combat te ñu ngi amoon 14 combat journal ba xam ne li ñu nemmeeku ci écurie boobee mooy ñàkk combat gu metti ama neex ponkal ma ca écurie ba moom dafa année blanche bu dee Ronaldo Zambala ak Boss Bouy moom ama neex dalee na wàll ci absence ya bu dee Papa Yade 2 mooy gone gi nga xam ne déggagul muñal le 17 mars la defal affaire Papa Boy Guinée Gamou Gueye 2 moom it mu ngay bay waaram le 4 avril la daan Kolifay 2 doomu jokkul moom it le 27 juillet la daan caatu Baye Fall journal ba xam le ne foofee benn defet képp ba ñu am garogaar moo leen ko teg bu dee Idi Samb may coach adjoint bala mu xam mooy écrit bi daal leen rek la manqué amul kenn ku ñu jàppale ci benn fànn jàppale daal ñun waa Lebu gi buñ ko amoon jël jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci été yéenekaay